ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di wàccee ku nekk si wàccuwaayam góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di nuyu del leen jégleel nuyu alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi ibni cheikh Ibrahima Niass di nuyu al imaamul akbar cheikh Ahmad Tidiane ibni Seyda Ali Cissé di nuyu porte parole cheikh Mouhamadul Mahi Seyda Ali Cissé waaye itam di nuyu cheikh Mouhamadul Amin Baba di nuyu itam suñ xalifa. suñ mag cheikh ibrahim ibnu cheikh mouhamad zeynab ñes di nuyu suñ sëriñ maolana cheikh ibrahima Cissé Baye Cissé Baye suñ nuyoo ñooñu rek nuyu nañ waa xadara bi yëpp bàyyiwuñ kenn di leen ndokkeel ci weer bu mag biñ nekk di wàccee nekk ci wàccuwaayam di ñaan yàlla yàlla nangu ngi suñ koor may ñu jéggal ak bàkkaar waaye itam fulal ñu suñuy yool nangu suñuy naafila suñuy kaamil eh, nangu suñuy jaamu yàlla E, e, fulal ñu ko ci barke ba radiallahu anhu di nuyu sama sopp Seydi El Hadji Faye al amir borom melow pay bi mu nekk ndaw lu bëgg bàyyi di liggéey liggéeyal bàyyi ci façon bu rafet ma yi ne ñuy sol ci émission yi boobu ba léegi ak kurus yeeg si jaade yeeg dàll yeeg abbaye yëpp yaa ngi dégg moo ci yëngatu di ko jaay kon képp koo xam ne bëgg ngaa am taaru pay bi soo demee ci melow pay bi Castor di nga ko am numéro nekk 78 018 dégg nga 17 euh, dégg nga 71 loolu mooy numéro am képp koo xam ne oo na ko rek boo demee dina la defaral ba nga kontaan di nuyu itam sama jigéen borom euh, dégg nga côté service nekk Liberté 3 Sicap numéro am tamit 77 638 dégg nga 81 39 yére yu rafet yi ñuy sol itam moo koy ñëw ku fa dem rek dina la defaral itam bi nga dégg nga kontaan. di nuy nuyu waa groupe soppay Cheikh Ousmane Niass yëpp bàyyiwuñ kenn goor ak jigéen mag ak ndaw di leen wàccee seen wàccuwaay di leen njukkal di leen ndokkeel ci weer bu mag bi nekk waaye itam ñaan yàlla yàlla saxal kàndoo gi te rafetal ko yaa ngi dégg yàlla may ñu mëgg bëgg baay bu sax su ñuy projet yàlla mottali ko ci jàmm ci barke Baay radiyallahu anhu seen numéro 77 681 54 18 ku leen oo bëgg intégré ci groupe bi rek mi ngi noonu boo ñu ñu ànd liggéeyal Baay ci façon boo xam ne. incha allah danañ am ngërmaaneem bismillahi rahmaani rahim ba tey baa ngi continuer di jàngale ci seerul qalbi mi téere boo xam ne moom la waxoon ne mooy doxu xolam mooy doxu xol bi ci tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom lañ tànn waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy soppeem jëm fan ci xadaratu dégg nga rabbi cheikh dégg nga dégg nga ilaa xadrati rabbi jëm ci péeg borom bi téere boobu nag doxo xol la waaye mbëggeel la waaye itam dëggu la waaye képp koo xam ne rek mu ngi suivre xam nga ne téere bu bëri njëriñ mu ngi nii ci ay tukkeem ak ci tawaaduwaa yi muy def bu demee ci rawdu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wane ne taxawaay ak taalibe la am diggante moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa naa ne moo tax bàyyi taxawee taxawaayi maqaam ak taalibe bi sàkku ci kanamu sëriñam loolu yëpp bu koy def di ko liggéeyal dégg nga ci façon liggéey boo xam ne nee na sàkkuwu ci dara lu dul ngërmaaneeg yàlla waaye itam booy sàkku ngërmaaneeg yàlla te utoo ko ci buntu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xas naa dégg nga amaana doo ko am de moo tax ku bëgg ngërmaane yàlla faaw nga jaar ci buntu góor yàlla yi mën a am ngërmaane yàlla sëriñ mooy wax ne ku wax ne di nga defal yàlla te defaroo soo ne dinaa jox yàlla tu jox mbindeef yi doo jox yàlla mukk moo tax dañuy nettali waxtu nekk bàyyi danga ko nettali mu ne dafa am yowmal qiyaamati benn bis benn waaye boo xam ne dafa ñëw yàlla yóbbu ko safara yaa dégg yàlla di ko xisaab taxawal ko bisi penk di ko xisaab mu lekk na ko yow de yàgg naa ñëw sa buntu kër di la ñaan yaa ngi dégg te mayoo ma waaye ne ko ah yow yàlla ni nga xem yaa ngi dégg sa mbay ni mu yaatoo yaa ñu bind li ñu am yëpp ci yow la ko am na lan ngay xaajoo jëmee si ñun ba ñuy ñaan yàlla na ko waaw am na benn bis benn ndaw wala imma benn taalibe ñëw sa buntu kër di la yalwaan nga ne ko awma te yaa ñi te yaa ñi am lim lay laaj nga ne ko joxuma la nit yàgg naa ñëw ñaan la mayoo ko yàlla ne ko kooku noonu man la de mooy mbindeef yépp ñoom mara dégg nga ñoom ñoomu uutu ci kaw suuf kon nag doomu aadama yooyu noonu waxtu buñ ñëwee boo leen defalee teraanga rek yàlla nga ko defal waaye lépp rek na nekk moo tax bàyyi tukkeem yeeg mbëggeelam ak dëggoom ak yépp da koo def ngir sàkku ngir maa nekk yàlla waaye ci ci kan ci buntu yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne woon dégg nga waqaftu ala babil karim muhammadin dégg nga waquuf xaasinin qalbi xayraan dégg nga mukkumadi laala rasulullahi yanhi shikayati li mawlaawa inni naxwu kulla maqsadi faqirun damet ba qasida ba jeex loolu yëpp di wane ne moom ko xaajowoo la ku tar ci ñàkk la waaye itam ku nekk ci ñaqere la waaye mu ngi tawat ci bunt yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amaan bi dana ko yeggee boromam loolu yëpp mooy bunt ak wasila rek wasila jokk waaye la boo xam ne moo la yeggale ci yàlla kon nag waxtu boo taxawee sa buntu wasila jàppal ne yaa ngi taxaw ci buntu pay yàlla bi moo tax bàyyi waxtu bu taxawee ci buntu yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafay yëg dafay bëgg ne dafay xam ne mu ngi ci taxaw ci buntu yàlla bi على هيكل يبري البراء وحنينه حنين عشار أو لك البرق يرعد مررت ببدر بالقلب تذكرا لقائدنا الأعلى دينغ دينغ المقفى وأمجد باين كنت ندويني دينغ كرة بيغا خميني wax na ne alayka salaamun wa huwa minni wa innani yaa ngi dégg mu ngi ci kaw jaww ji waaye di liggéeyal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam si àllig man nit ñi salaatu wasalaam boo xam ne na sax si yonent bi waaye mu ñu jógee ko ci ibrahim ibrahim mi nga xam ne mu ci kaw avion yi ci àllig mànni ngi di ko wër ngir liggéeyal yoon ci yàlla Muhammad waaye tam léeg itam ak léeg ay jamono dina jéggi ay àll da nga fatfadu suma fatfadu topp ay àll ngir lan ngir liggéeyal yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu ne ala haykalin maa ngi ci kaw jëmm jëmm joo xam ne yabri yett na ko albara jaww ji de wa xaniinuhu riitam wala nga ne wa xaniinuhu jooyam xaniinu ishaarin mooy jooyeg gélém goo xam ne ay doom da koo réer ni muy yuuxoo nii jooy di fooroo bàyyi mu ne li ma yëg jëmm ji ma yëg noonu la mel waaye itam awlakal barqi dafa mel ni melax yaraadu boo xam ne mu ñu baatu yaa ngi dégg mooy maa ngi ci kaw avion yi avion bi bi nga xam ne dañ koo yett jaww ji moo yett avion bi nga xamne ritam dafa melni ritu gëlëm bo xamne ay dom da koo réer avion bi ritam dafa melni yaangi deg euh awla qal barqi dafa melni melax wala dënn bo xamne dafa jek jek rek daanu nimi bato nimi foré mune avion bi noonu la mel kon nak tay dem mu ngi ci jéré ji mu ngi ci botay mu ngi ci oto yi waaye tey mu ngi ci kaw avion bi di tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di la wan avion bi màggaayam di la avion bi doyoom moo tax mu ne riitam dafa mel nii riit ak boo xam ne ay doom da ko réer bàyyen ko ne di dem maratu bi badrin bil qalibi tazakura maratu romb naa bi badrin si dé nga nga si badar maa ngi ci kaw avion bi waaye nag romb naa badar bil qalibi si teen ba tadakkuran may fàttaliku li qaa'idina ñeel suñu yilli de bàyyi mu ne maa ngi ci kaw avion bi maa ngi romb badar te gis naa ne man maa ngi romb badar avion baa ngi dem ñu ngi romb badar badar yaa ngi dégg ñu ngi koy romb waaye itam sit ak teen ba itam teen ba nga xam ne sëriñ sànni woon ñoom Abu Jahl ñoom ñëpp ba ngi leen rayee fa nga leen sànni bàyyi mu ne maa ngi fàttaliku kan laay fàttaliku suñu yilli nga xam ne al aala mooy aji kawe al muqaffa kooku lañ xëncu de woo am giddu kooku moo gën a tedd ci mbindeef yi waaw maa ngi fàttaliku fàttaliku ma badar ngir fàttaliku nooni waa badar déedéet damay fàttaliku badar di fàttaliku ki nga xam ne moo jiite woon xaraba te mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay fàttaliku badar di fàttaliku nam lañ fa amoon di fàttaliku si ñi li nga xam ne مو كوي مو غنا كوي شي مولي من في شي مقاما شي معنى اك سي حس واي تام موم لا نخنتو ياغي ديغ من في بي نيكي سي عالم عدم ياغي ديغ شي ديغا شي عالم وجود ياغي ديغ يونس صلى الله عليه وسلم رك مو فا نيكون نيك روح الوجود نيك روح بيغا خامني موم لا يالا نيك بن ياغي ديغ xenc ko ci moom nag amalee mbindeef yi ci moom moo tax bàyyi na leeram gi si la nga amalee aadama leeram gi si la nga amalee dégg nga aadama aadama dégg nga ñu amal ci xawaa xawaa indi ñu mbindeef fi de kon ñoom ñëpp ay xaalis leen moo tax waxtu boo delloo mbindeef yi ci dégg nga ci xawaa ku fi des ادم رك مو في ديس nga de nga xawa rek mo fi des ak aadama nga jël xawa delo ko ci aadama ku fi des aadama rek moo fi des de nga jël aadama delo ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ku fi des yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam rek waye bo jëlé rek haqqatu muhammadiyya bobu sadni ko ci bir pe yàlla bi ku fi nek yàlla rek mo fi des ci awlu zatum motax nak mom rek mo fi nekkon ba fi dara nekut fofu la xencoo muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ko mu nekk ñiitali dé nga ñun yónni ñi ba pare na daf ko mu gëna tedd ci mboolem mi ne fi de moo bayane dégg nga yasmahu sawaqi fa adnu muaatiba li ahli lqaribi lkafirina unaddidu bàyyi mu ne a yasmahu ndax dina ma may dégg nga sawaqi safoor bi fa adnu ma jege muaatiban may ak yedd li ahli lqaribi ñeel ñooy tañ ba de yaangi deg baye bàyyi mu ne ngi dem rom nañ badar waaye maa fatali ko li nga xamne mo mooy yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo xewé mom mom lañ xencu tam moy ku tedd ki waye tam nax sëfoor bi nga xamne moy dawal avion bi dina ma may ma jégué badar moy nax sëfoor bi dina wàcc ba tollok badar mom mun leen yedd yaangi deg dégg laaj leen ay laaj yaangi deg xass leen ngaññi leen da nga yéféri bon yi nga xamne nga doon xeex ak jullit ñi bañ rey leen suul leen foofu yaa ngi dégg ci xare Badar bàyyi mu ne ah ba xam safur bi dina ma may de mu ne ngir lan ma yedd dégg nga ba Badar mu ne alkaafirina ñi nga xam ne ñooy woy weddi ñi waaye nag unaddidu tamit ma xas leen dinaa leen xas dinaa leen yedd ba xam safur bi dina ma may mu wàcc tuuti ma tolloog waa teen ba xas leen yedd leen waaye itam ba xam dina wàcc may ma dégg nga dégg nga wa aslahum wa asaluhum maada laqu xiina hayyaju dégg nga bi jaysin darabuhu wa jannadu yaa ngi dégg kon nag dar su bàyyi noonu bàyyi ma ngay dem dem na ziyaare gi ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ma nga Medina Munawwar yegg ci avion ba dégg nga avion bi mu ngi ba Badar mu ngi romb Badar bàyyi bëgg a jege pàkk teen ba pour yedd yi nga xam ne ñooy abu jahlin pour yedd walid yaa ngi dégg pour yedd tamit otaybatu ak shaybatu ñi nga xam ne ñoom ñëpp ne da nga leen rey sànni leen si biir teen bi dara su bee di de dana ko leeral waaye itam ma dem yedd leen doyut waaye itam ma xas leen ndax ñoo weddi woon yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma yedd leen ndax ñoo doon xareek saxaaba yi ba nga xamee ne jëlee nañ ci ak toroxtaange waaye jëlee nañ ci ak texe aji moo tax amul benn benn fitna fitna boo xalaat rek teg nañ ko yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaj neen ko dëkkam bay màkka xaj neen ko gindi ci moom jaay ci moom yaa ngi dégg xaj neen ko yaa ngi dégg xurriyaam yaa ngi dégg lépp lu baax loo xam ne rek yonent bi doon na ko am màkk ci jàmm dem na ba amatu ko dégg ci jàmm moo tax bi mu demeen waa gi na ko ah yow de mu ànd na ndey mu ne ko bi mu ñëwee netti li géntam ñu firi ko mu ne ko yow ah yàgg-yàgg da nga gàddaay de dina la jénne màkka de mu ne man ah, man mii loolu yëpp ngir lan bëgg mbokk moo ko waral mu ne ah man mii de danga ma jénnee màkka mu ne ko waaw bis dina ñëw génne la màkka de ndax loolu lan moo ko waral bërik noonu rek lan moo ko waral di xeex islaam yaa ngi dégg te ñoom ñëpp ñii bu ñu nekkul ay baayam ñii ay nijaayam leen moo tax yoon ak dëgg képp ku ci nekk dañ ci wéet mu neex la dañ ci wet mu naqadi la diñ ci wéet ndax ñoom ñëpp foofu lañ jaar fi yoon sallallahu alayhi wa jaar képp koo xam ne jël nga yoonu islam di nga fa jaar fu Cheikhu Tijaani jaar képp koo xam ne jën nga yoonu sufiyanke di fa jaar fu Baay jaar fépp foo xam ne jën nga yoonu sufiyanke di fa jaar moo tax Baay ne tuumaal nañ moom façon tuumaal bu nekk nere ñu wax ma ne Cheikh Ibrahima Niass da ngaa ëmm te dañoo xam ne góor du ëmm rek moo tax wax ñu ma ko de wax nañ ne damay jaxase mbokk gi wax nañ ne yaa ngi dégg duma wax dëgg waaye itam wax nañ ne yaa ngi dégg damay oo ni ñi ci ay caaxaan wax nañ ne duma ma julli du ma oor wax nañ ne damay bolante ay góor ak jigéen xas façon ñaawal bu nekk façon kàddu gu ñaaw gu nekk bàyyi mu ne wax nañ ma ko ci lettre bi nga xam ne moom la bindoon waa Ngodiba lim na lépp ci ay xas xaste si tooñaa ngi yëpp yoo xam ne ñu ngi ko koy tuumaal ngir lan yoon bu baax bi mu tànn rek moo ko waral waaye bi mu demee ba mat sëkk lan la jeexalee lettre bi mooy ñoom ñëpp di weddi tey bis dana jot ñu ne wuy yaay la moo tax ñu yéex a dugg ci feeju bi ñoom ñëpp danañ toog bis rëccu li tax ñu yéex a dugg ci feetu bi te yes nañ ci jamono jóge de te bàyyi dafa waxoon ne jamono dina ñëw bañ dégg loolu tey ñu bëri di tarbiyu li ñuy wax su ma yëgoon tarbiyu naa bu yàgg kon bàyyi waxoon na ne jamono dina ñëw ba ñëpp ñëpp danañ rëccu li tax ñu dugg yéex dugg ci feetu bi moo tax jamono dem na ñu ko doon weddi ñëpp faydu bi lekk na seeni doom ñu ko doon weddi ñëpp faydu bi lekk na seeni soxna lekk na seeni njaboot màkk gi ñu xeex woon yonent bi ba mu tax mu gàddaay dem Medina tey dem nañ ba màkk ñëpp yaangi deg julli ñaam fess del ñu ngi fay magal yàlla ñu ngi fay julli ñu ngi fay or te yaangi deg ta dara xewut motax deug moy fete kaw fen ba ila yawmi diin Cheikhu tiani itam kadaalika na ko noonu baye itam ñako don xex ci feydu bi yep di ci ay sen dom di ci ay sen soxna fu baye romu ñi xass fu molom fiñ dege molom mi dóor yaangi deg xass len leen saaga leen loolu yëpp jeex de kër goo dugg am na taalee baay loolu lan moo ko maye mooy dëggu ci li nga nekk waaye itam bëgg li nga nekk boole kook sellal ak jub waaye itam ànd ak ndimbal ak yàlla kon loolu rek moo fi nekk képp koo xam ne yaa ngi ci yoon bu baax xuri du ñàkk dégg nga sa du ñàkk dara du ñàkk waaye xamal fa nga jëm rek di ñaan yàlla yàlla yeggale la fa loolu rek moo jara ñaan moo tax yàlla nañu yàlla may wala aqibatu lil muttaqin mujj rafet yàlla nañ ko yàlla may ni nga tàmmalee yàlla nañ ko jeexalee dund gi yàlla lépp rafet yàlla bu ci dara ñaaw yàlla may ñu gëm yàlla ak ragal yàlla may ñu bëgg baay ak jeex ci baay may ñu mbëggeelu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ku am mbëggeelu baay rek am nga mbëggeelu Cheikhu Tiyaan yi am nga mbëggeelu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam darsu baay ak noonu téere baay ak noonu taaliba la boo xam ne dëggu na ci pays sëriñam taaliba boo xam ne bëgg na sëriñam taaliba boo xam ne mu ngi xidmaal sëriñam ba ne bi jaw naa mag gën naa teroot mu ngi koy xidmaat taaliba dégg nga boo la mu ci avion yi tey bu subaa mu ci jéere ji bu ginnaaw subaa mu ci bote yi bu ginnaaw subaa mu ñu war tànkam di dem loolu nag mooy dëggoog taalibe kon nag képp koo xam ne yaa ngi ci rek jàppal ne ngi ci lu bàyyi nekkoon waaye nag yàlla nga yàlla may kàttan gi nga ko liggéeyalee may ñu mëggeel gi nga ko liggéeyalee may ñu doole gi nga ko liggéeyalee may ñu xam-xam bi nga ko liggéeyalee may ñu alal bi nga ko liggéeyalee may ñu wërsëg bi nga ko liggéeyalee te lépp nekk ngir yàlla yaa ngi dégg moom itam mu gërëm mboolem xidma yi bi yaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala allahi bi aziz wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu هند مهدي وقد هنت جميع رجال الغيب تحت قضائي فما قطعوا في شرقي والغرب فدفنا الى مكه الا لشم ذا